10 jours yi nga xamantene mom lañuy la le chef de l'État appelle le ministre de l'Intérieur à ouvrir des concertations avec les acteurs euh, da fay wax ci li nga xamantene mom modi mbirum processus électoral bi mhm. xam nga ginaaw biñu fixé lii di élection yi dañuy jëm ci li nga xamantene mom modi euh, minim investisseur manam parti bu si nek wala coalition bu nek da ngay ñew eh, samp si nga xamanteni mom moy di ñom ñoy say say mbeur xamal ne diw ak diw ak diw la fassiyene samp pour jëm ci li nga xamanteni mom moy di élection eh, législative yi ñu demal donc eh, néna président de la république tamit soñu nak nga xamanteni mom moy di ministre de l'intérieur mu dal di sek waxtaan ak ñi nga xamanteni ñom ñoo ngank mbeurum élection yi mm. donc bëss bi mom ci loolu la dal di teunku amna solo alors ñu jall ci benen xëtt alaaji les échos Ange Marie. ah finalement. voilà donc euh, les échos mon mu wati wax ci mbirum euh, Didier Badji ak ñi nga xamante di euh, Sambou ou des nervis de l'ancien régime nee na kii di Jérôme Bandiaki arrêté hier son nom est cité par des pacifiants euh, sans plusieurs, sans plusieurs, affaires. Membre de la sécurité de la il a été arrêté par la brigade d'intervention polyvalente, Madame BIP. Hmm. Il n'y a aucune résistance lors de son arrestation. Euh, Jérôme membre de sécurité parti ba ay Pastef yéen daal di dénoncé ci li nga xamante ne moom moo li fi jotoon xew diggante mars euh, jàpp ba euh, li nga xamante ne rek moom moo di euh, surtout Macky ci bopp réew mi mm-hmm. maanaam événement yi fi jotoon am ba ay nit jàng ci seen bakkan waaye itam surtout li nga xamante ne moom moo di mbirum Euh, DJ Badji ak nga xamante ne moom moo di Philibert Sambou ñëpp xam nañ ne anam ñi nga xamante ne ñoom lañ nekkoon seen bakkan ba tey kenn mënul mënul euh, expliquer askanu Sénégal. d'accord kan ak kan ak kan moo faat euh, bakkan Philibert ak. am na solo alors Guèye Para mu mel ni moom turam yàgg nañ ko dégg ci yi fi daan xew ci Sénégal jëm ci ay manifestations yeeg. waa Maron di fa ñoom ñëpp dañ ko dañ ci daan dégg ay turam ak waa Pastef ñi nga xamante ne yàgg nañ ko dénoncé mu mel ni tey arrêté nañ ko est-ce que jàppoon ni peut euh, ci kawam moom ak enquête bu tukkee rek lu bëri peut-être dina mën a feeñ rawatina tur bi ñuy tudd ci Didier yi ak Fulbert Sambou. ñii même bu du woon régime bi sax moo falo keneen ku fi falo woon dinañ leen woo gis nga Sénégal gii ñu nekk dañu mayetul kenn nga jël ay yet di organiser ay bandi ay ay ay ay ay ki jàpp nervi yi de créer sa benn groupe mafieux ñii bu yàggoon sax genre milice lañ naroon indi si Sénégal bu ñu waxantee dëgg. parce que jël ay nit ñuy déparger sa siège. Mhm. yor ay yat ak i gourdin xool ban lieu le le le le le patriote yi nekk di def seen manifestation yo nga fekk leen fa di len tour di len yat ñi ñoo japp patriote yi di len tour di yor ay auto yu weex pick-up yo xam ñi ngi déparer siège à per Sénégal yépp tek ci sen bët. kon ñi ngi gërëm ñi nga xam ne ñooy euh, le procureur bi nga xam ne moo fi nekk ak justice bi nga xam ne moo fi nekk. parce que chaque jour nga dégg ñu naan dañuy def dañuy demander justice pour qui nga xam ne Fulbert euh, euh, euh, Sambou Didier Badji Nous demandons encore justice pour Pape Abdoulaye Touré. justice encore pour Damboy parce que yii affaire bande lañ doon def fi yoo dafa de parce que amna pouvoir amna naa amna ay moyens jël gros bras ay ponkal ñi dem ba Grand Yoff du joxe armes ak pour nous jël de dal ci kaw askan bi lolu jeex na tey képp ku fi jëlati yatt wala arc arme daan da koy jox di ko dóor ay nit fii police moo am droit am arme wala gendarmerie wala armée d'accord ñii ay affaire bandi lañ jaar kon justice na def liggéeyam Jérôme Bandiaky arrêté nañ ko démb am na yeneen ñu ci nekk mhm. am na fa xale yoo xam ne jege nañ pouvoir bi ñii ay doomi Macky Sall la ñu dem ba siège dem ba fële tënk Pikine xaw ma fële euh, Grand Yoff Grand Yoff mhm. di fa financer ay xaalis mhm. parce que ñii ñëpp lobby la yoo xamante ne tey jii ki nga xam ne moo nekk Amadou Sall doomu Macky Sall ñëpp gis nañ ko fa mu yëkkati xaalis di di di ko financé ay nit yoo xamante jënd ay jakarta di leen ko jox te ñoo ñëpp kenn ku ci nekk ay bànn gën ñoom taxaw nañu def ay aveu na yoon def liggéeyam ak képp ku mu mën doon am na solo alors Guèye euh, autant pour mu mel ni ñu bëri dañu jàpp ni kii buñ ko arrêté rek waruñu fee bàyyi ki nga xam ne moo di Amadou Sall moom doomu Macky Sall boobu gis nga euh, fi mu nekk nii euh, dama bëgg nit ñi gëna dalal seen xel damay rectifier Ange Marie mm. arrêté wuñ ko suite aux dénonciations des pastefiens dañ ni pastefiens yi dañ ko cité mais du du pastefiens yi ñoo tax ñoo ko dénoncé ba ñu arrêté ko. Mm-hmm. dik moo ko arrêté. kon li journal bi bind kon. non journal bi li mu bind. Mm. daf ni son nom cité par des pastéfiens. maanaam ay pastéfiens yàgg nañ ko tudd. ci ay lunxóor. Mm-hmm. mais du loolu moo tax ñu jàpp ko. parce que yàgg nañu tudd euh, euh, ay donc euh, C'est mm-hmm. euh, les choses se mettent en place mais fatel rek né sénégal changé na amna ñu président bu bess jomay amna premier ministre bu bess ousmane sonko ñi nga xamni dañ leen persécuter de 2021 à 2024 mm-hmm. mais bu ñu sétlo commandement gendarmerie xam nga changé nañ ko. biñ ci jógee xam nga changé nañu dik mm-hmm. directeur ba newatu fa. ki nekkoon cybercriminalité xam nga changé nañ ko. Mm-hmm. sûreté urbaine xam nga changé nañ ko. Mm-hmm. dossier judiciaire mu ngi commencé par enquête de police et de gendarmerie. côté yooyu def nañu réforme yëpp changé nañu ña fa nekkoon. mais est-ce que changé nañu ñu ndaw ñi. Euh, grade yu ndaw yi. des na mais li li ëpp solo li ëpp solo commandement ñu commandement ak la door. loolu comme ni di wax. Ah. ne jël information peut-être nañu. Mm-hmm. à la tête des des pôles d'enquête au niveau de la police. au niveau de la gendarmerie ñoom changé mais yi fi doon jàppaate mandat de dépôt systématique aussi ñooñu ñëpp buub nañ leen yóbbu ñu aussi changé nañ leen. surtout deuxième cas euh, dispositif boobu nga ñëw démb xama barki ñu parquet financier. Euh, pôle financier judiciaire ñu teg ko. avec 27 membres. nommé un procureur boo xam ñëpp ça veut dire que les choses sont en train de se mettre en place. ci jamono jo xamni nit ñi dañu yàkkamti woon. ñu tek loxo euh, ñi nga xamni ni ñoo fi doon def ay ñaawtef ci walu suñu alal. ak ci yeneen wàll. mais arrestation Jérôme Bam euh, banjaki bi hmm. c'est plein de messages. Hmm. ça veut dire que reddition des comptes ñu ngi ci mais les crimes commis. Hmm. aussi des crimes de sang tamit. ñu ngi ci. mais man dogguma la dama may fàttali. dog nga ma kay mais dama dama lay indiwaat. <laughs> mais damay ñëwaat ci contexte bi nga ñëwee mooy am na ay jamono nga toogoon fi nga ne loi d'amnistie bi même bu jaree wiir beneen porte sax. Mhm. dinañ ko laal donc lii ngay wax ni tey da koy dëggal ka en fait. waaw bien sûr parce que boo arrêté Jérôme. <laughs> waaw Jérôme xam nga affaire Fulbert Sambou. Mhm. ak Didier Badji. Mhm.

sniper sniper moy lan. tiire kan mooy jamkat. bu jub bu jub loxo jub loxo sniper. ko xamni day pavané wu xoola man ah, signaler nañ mako ci ben grand restaurant bu nek Almadi ay jamono. Mm. wa xalaat TV. d'accord pour ma fek ko fa. Mm-hmm. mais du ñun ñoko wara war a mm-hmm. bu fekkoon ñun dañ ko waroon a lijjanti kon dañuy melne mom d'accord mais tey ji yoon teg na ko loxo nañu fexe nag mu wax mu wax exaction yi amoon ñaka daan ñan ñooy responsable yi parce que arrestation bi day def effet boule de neige hein? hmm. gars yi nga xam ne ils sont super protégés du ñu ay guerrier de am na noo leen foo leen di kepp dañuy wax par force dëgg la te kii gis nañ ko au côtés de beaucoup d'hommes politiques y compris Doudou Ka mhm y compris Amadou Sall y compris ñu bëri ñoo xam ne ay waa APR lañu moom tudd nañ ko ci lu bëri may fàttali rek ni bi ñu ci oto dàmbooj yam ñu ci tiiree ci otoom mais dañ ko top. ba mhm. dame garé gaare otoom ci biir Ñom ñu am fitu génn ba caméra de surveillance yi jël leen ñi gis image yooyu yëpp y compris gis na image yi nee na identifié na ci Jérôme Bandiaky mii mu dem gendarmerie porter plainte ñu war a enquête am na benn jour man ak moom ñoo ànd gendarmerie ba ci commandant bi mu naan ko wéy ñëwal mardi chaque jour ñu ni ko ñëwal mardi ñëwal mercredi ñëwal jeudi mm-hmm. moom ak maître euh, Babacar njaay bi nga xam ne moo nekk SNR léegi kooku day d'ailleurs moo doon taxawu dàmbuj mhm. enquête boobu bi fi ñuy nekkee mënul woon dem fenn. mbirum moo tax ñi nga xam ne ñoo yore enquêtes yi ci police ak gendarmerie. Mhm. ñooñu la ñu njëkk a teggi ba pare teg ñoo xam ne dinañu mën a doxal mbir mi parce que am na ñoo xam ne boo leen fa tegoon su fekkee ni ñoom sentir nañu seen implication seen responsabilité ci répression bi ak li doon am mais dañuy bloqué enquête yi xam nga ñi nga xam ne ñoo nekkoon sûreté urbaine wala dik wala gendarmerie te nga xamni ñom ñoom ñoo doon joxe ordre d'accord ñoo doon naan Sonko do jaar fi da ngay dugg ci tunnel bi par force mu dugg ñu gazé ko par force ak yoy tout ça ñoñu bu fekkoon ni ñooñu la doon dénk enquête affaire yu dem. di doore ñoñu lañu ñu njëkk ba paré gaay ñu ngi def lu ñuy doxal. d'accord ñu ngi doxal. donc arrestation bi. Mhm. euh, si c'est avéré c'est une très très bonne nouvelle parce que kaaw Didier Badji ak Fulbert sambu mënu ko dexeñ ci amnistie te may fàttali rek ni. Didier Badji gendarme la. section de recherche ñu fi gëna mëna choses. donc sen élément buñ ko ñaawtef bu nous ñu enquête bi li enquête bi bu joggé dalay enquête bi fay aboutir fay dox. kon lu activistes yu ci bu yagul dara xam naa dinañ leen jàpp parce que dañoo taxoon ripp ci dossier bi sûr qu'ils étaient de l'impunité qui qui qui qui les couvrait. seen couverture bi ñu amoon ci couverture bi ñu amoon bi fi régime Macky Sall nekkee woon. kon lii lii c'est une excellente nouvelle pour le Sénégal pour jub jubal jubbanti bi nga xam ne parce que quand même comme liggéey Paara wax li fi amoon mosu fi am. vraiment ay pick-up waaw jógee siège APR. yor ay gourdin ay auto présidence mooy huit huit yooyu. dafa demoon ba mel film la ñu leen di filmer ci mbéd mi tout noir. ay gars yi wacc yoré ay arme à feu ay fusil di tirer ci population bi. waaw ana numéro 9 bi. Baba kana tank yi lañu ñu ni diko di ko diri ak rasta yi. mais est le numéro 9 boobu yéen a ngi koy fàttaliku. Mhm. mais mais c'est des nervis. mais Clédor. qui est le numéro 9. dinañ ko xam loolu yëpp dinañ ko xam. donc exaction yi amone ñaawteef yooyu amoon mhm. je crois que amul ku ko gën régler que régime bii au pouvoir nga xam subir ces exactions et ces violences ñoom la ñu rey ay militants qui sympathisants mhm. ñoom la ñu tëj ay militants kaso mhm. ñoom la ñu amputé ay militants donc ce n'est que justice donc, Alhamdulillah, ils sont dans la bonne direction Merci. sur tous les plans. Sur tous les on plans. nous signale que Pape Abdoulaye Touré, vous savez qu'il a déposé une plainte que, que aujourd'hui, convoqué, il a convoqué à DIC, Division des investigations criminelles, Inch'Allah. Képp ci mhm. Alors, nous allons ci benen autre... Wa Pape Abdoulaye Touré je may def may def ben parenthèse rek. Pourquoi DIC mhm. Parce que mom gendarmerie la joxogn baram. Kon enquête bi do ko confier gendarmerie. Mhm. Donc vous démé DIC je crois que avons une enquête bu indépendante pour nous situer responsabilité parce que moom ci birkan camp lañ ko torturé front de terre bi ni un jour que c'est facile à à à connaître parce que quand yi dañuy événer lépp nous dañ koy mentionné